محمد صلوات الله في أبد عليه في إذبه كل به كلام أعطاني الله بوجه الله كفاني الباحث وما تسرمدا وفي بقائي يسر أحمدا كفاني الباحل ممات سرمدا وبي كفاني يسر أحمدا نفعني ولم يدرني ولا يدرني كلي عليه عولا تسيع الأمراض والأمراض وجهه بقوله بالعليان عن بيت بيا مرديا لا شك في كوني بالامين فيه وبالكتاب والامين لا شك في كوني بالامين فيه وبالكتاب والامين ملكني الامين والامين كتاب باهن جاني تاميم ملكني الأمين والأمين كتاب باهن جاني mbokk yi jullit yi ñu dellu santaat borom bi tabaraka wa taala ci nabil Moustapha jéem a delloo njukkal aji liggéeyalam ji nga xam ne moo waxoon ne raamoo masiri ila jurbel la la session لو عينو سر ما في سير ما رامو دال دي سبب غيبتي أن الله أراد أن انا من أجاه وأن أكون شافعا لخومي وأن أكون خادما في دومي يالا دوغال مو نيو في تي ات مو نيو واخ لا شين لغي في لغي بو ياتو با اغ تي لول صح تي باك بي نيو البقات المبارك فكي ات اك جوروم waaye ni ñu leen ko misaale kon dañuy wax rek ne ñu ngi fii ci alboqaatul mubaarak euh, ni ñu ko waxee euh, ku tedd bi mu fi ñëwee ci la Chine jaar na ci jaaruwaay yëpp waaye ni leen ko waxee sàng ci barab bi ñu jógee léegi la tàggatoo waaye bi mu tàggatoo nag néeg bii ñu nekk wax nañu ne moo nekkoon néeg bi ñuy wax bi ñu tuddee woon mm, baytu maqam wax nañu itam mooy néeg bi nga xam ne moom la jagleeloon ahlu badrin wax nañu ne néeg bi day ci ay jamono amoon na ñetti téeméeri toogu ak fan ak fukki toogu ak ñett néeg bi itam bokk na ci néeg yi nga xam ne daana wax na ku ma fi woowut moo fi fekk li kër gi rëy rëy ak li muy yaatu yaatu ci néeg bii bu ñu demee ba toll ci fukki fan ak juróom-ñeent ci muharram ci dingere bii ngeen di seen ci biir fi lañu ko fekk ci zaayir luy niroo ko rombu jaan ñu wax ne gën naa jege boroomam barab boobu nag euh, ba léegi dañ koy ziar di ko barkeeloo am na juróom-ñaari gaal yoo xam ne ku tedd ki mooy ki ko fi bàyyi woon moo nekk nii moom ngeen di jàkkaarloo ba fii ñu toll nii bokk na ci barab yi nga xam ne nun murid yi dañ fi ñëw di fi sàkkoy aajo di ko fi faj te lépp lu ñu fi ñaan lu ñu rek itam gëm nañu ne suñu borom daañu ko defal kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu من لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتئا ملأ